toftaloon la doona te moom Macky Sall ci boppam moo ko initié jaarale ko ci ab lan moo tax mu ñëwaat nag bëgg indiwaat débat bi bëgg ko suliwaat ngir nag ñu bëgg a nekkaat ci limitation des lan moo ko waral loolee ab laaj la boo xam ne Assane Samb moo xëy di ko laaj journal bi nee moom Macky xam na ñetteelu mandat bi dégaa yeeka njombe yeeka girawal yi nga xam ne def na ko ci déndu Afrique mën nañoo tudd Côte d'Ivoire mën nañoo tudd Guinée Conakry mën nañoo tudd Burkina Faso mën nañoo yem foofu ba tey ci Macky Sall war na see jóg ah. moom Macky dafa wax ne limitation mandat loolee nag maanaam mbir la moo xam ne baaxul ndax dafay tax promesse dige yi nga xam ne dige nga ko doo ko mën a def ak ah. programme ak projet yi nga xam ne nal nga ko mënoo koo def ah. moom Macky loolee moo tax mu jàpp ne limitation mandat loolee du solution kaddu la yoo xam ne bëri na ñoo xam ne dañu koo daal di naqarloo ba tey ci journal bi Alioune na daal di wax ne njombe yeeg giraawaali yeeg musima bu yi nga xam ne Alpha Condé def na ko ca diwaanu Guinée Conakry bala ko fay fekk fekk ko fa bala ko say dal dal ko ñëpp ñoo gisandoo la nekk erreur yooyu nag Macky Sall war na koo moytoo te Macky nag war a jaar ci buntu bu mag bi Abdoul Mbaye moom na bu baax a baax kaddu yu Macky Sall yooyee Assane Sambo ne Macky Sall ne les hommes les institutions restent yéen a kaay gi de l'Observateur xëy wax ci élection yi nee na coalition Benno Bokk Yaakaar Aminata Touré la ñu jël daal di koy tabb mu nekk seen tête liste nationale Amadou La Tribune nee na Amadou Ba la ñu mu nekk tête liste Benno Bokk Yaakaar ci diiwaanu Sonko njiitul Pastef la ñu jël mu nekk seen tête de liste nationale yéen kaay gi nee na mbir mi nag am na lu sa bees ndax coalition wàllu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi ñaari coalition yii ñooy ànd ci élection yii nga xam ne moom la ñu dëgmal ci département yi lañ ànd ci département yi waaye kenn ku nekk am na liste nationale na en tout cas li am ba desal ñaari coalition yi lu toll ci 48 heures yoo ne waxtaan nañ ko mbir mi sax naru toon a sotti waaye nag ba ñu demee ba sa mujjantal ga la mbir mi sotte yéen kaay gi de turbine xëy duñu xibaar naan ñu coalition wàllu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi ànd nañoo ñoo wax ne élément système yi ñoom gisante nañ si seen biira yéen a kaay gi dalee seko nee na coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Wallu Sénégal dañoo bëgg a wër ndomba nag Macky Sall yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Théodore Monteil ñu laaj ko ci lu jëm ci mbiri Barthélémy Dias ak Macky Sall ak nag giitangaas gi nga xam ne moom la ñu nekkee ci lu jëm ci recrutement capitaine Touré ak ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna moom Théodore ne ma Monteil dafa daal di wax ne Macky Sall dafa daal di tàbbi ca ndëgg sarax communication goo xam ne mënoon na ko moytu ndax Barthélémy Dias maire la jamono ji dañu ko war a félicité bañ a politiser mbir mi yéene kaay gi di Dakar Times ñu xëy fekk fa Koseer yi ñoom nag tuumaal nañ Barthélemy Dias boo xam ne toll ci ñeenti milliards yéene kaay gi di 24 heures nee na escroquerie foncière njombe gu doy waar ci lu jëm ci wàllum suufa sa jam ñaajo tudd nañ si Jóob si tudd nañ si Jóob si maanaam daf caa laale ba ca bopp ak baat yéene gi di réew mi quotidien xëy duñu ñu violence na askan wi nga xam trop maanaam sonn nañ tay nañ damm nañ tey nañ maanaam nag si week-end bi imam yi délégué de quartier yi parents d'élèves yi bàjjenu gox yi ñoom ñëpp ñoo génnoon ci mbedd mi yéen kaay gi di Vox Populi xëy yóbbu ñu diwaanu Kaolack njombe girawaleeg musuma bu kumba gu tey war goo xam ne moo fa xew nee ma ci hôpital ba dafa am benn liira bu ñu wax ne liir boobee nag ginnaaw bi mu juddoo daal dafa ñàkk bakkanam ñu jël ko yóbbu ko ca morgue ba ay mbokkam nag ba ñu demee ca morgue ba fekk fa nag liir ba muy ñëw ñëwi journal bi ne na mu nekk mbir mu doy waar doy waar waaye nag liir boobee mujjee naa ñàkk bakkanama journal bi nee na am na benn infirmière boo xam ne ma nga ci garde à vue libération yéen a nee na mbir mi nag mbir mu doy waar a doy waar la ndax liir boobe lu toll ci ñaari waxtu yoo xam ne daal nañu koy bàyyi nag ci ab carton personnel ba ñoom nag am na ci kenn koo xam ne mbokki liir bi bi ñu waxee ak moom da na a tontu na leen dem leen fu neex yéen a kaay gi di Stades xëy di ñu xibaar naa ñu Sadio maane ginnaaw nag Liverpool ak Tottenham bi ñu niilee Sadio Mané xelam nag war naa mën a génn gagné li nga xam ne mooy championnat ba société nationale d'électricité bu Sénégal Sénégal